bisimila dalee nag jàmm li gën a fës ci yenekaay yi xët bu njëkk bu observateur mu ngi ñu xamal état bu Sénégal dañu ko joxoñ baramu tuuma ci nag loi bi nga xam ne mooy càmbar wàllu finance ci wàllu finance boobu ministère bi nga xam ne moo ko ëmb moom andi na ab kayit ñu mën cee gis tamit ba tey ci observateur si tourndu mii di wax ne xalifa Sall dañu ko war a jàpp ay defkatu ñaawteef dañoo cong urgence cardio yóbbu fa ñaari télé ak 600 000 ki ñu koy xamal di Vox Populi xëtu yéenekaay Libération tey mi ngi ñuy wax ne Mina moom dafa def ci gafam 24 milliards yoo xam ne indiwu ci benn leeral kër Mbay Fall ña ngay jooytu di wut police bu leen aar ginnaaw bu ñu fa fàttee émigré bii ci buntu këram tribune yéenekaay dellusiwaat na ci nu mu gën a yaatoo visite bu njëkk bu président gambien fii ci dakaar mu mel ni dafay wut si karange enquête yéenekaay moom la xëyee wàllu tàggat yaram la ñuy jeexalee bu ñu bëggee ñu baal ñu dañu wara a qualifié ci mondial ba muy kàddu Pape Alioune Ndiaye nekk milieu terrain yu sunu gaynde yi mu nekkoon di gën a fës yéenekaay yi di leen jox dig daje suba incha allah.